nee naa la weeru koor yi boo ci nekkee danga koo war a sellal di ko fullaal di ko fay daal ba yàlla fay la ci ngërëm weeru koor waay ndeysaan weeru koor waa ngi nii nee naa la nan doon ànd ak koor gi ànd ak fi nga xamante nii mooy émission wax sa xalaat ànd ceeg 28 pro <laughs> ay pro da daal di am pro jabaay waxal <laughs> sama ji ma jàmbaar nga ah naanaan nga wax yow kay naanaan nga wax dëgg yàlla Lamine waaw rek ci xale waaw dana looy ni mbaxalu dem de bëgguma maa yi ay yenn saa yi nga gis kenn rek mu jëpp mbongoo nga naan nii tey dana mel ni mbaxalu dem moom du yëfi nit ah ñooñu sax danañ wax ak ñoom di waaw mun ta ñàkk danañ wax ak ñoom de ñuy wax ay mbaxalu dem ak yooyu lu baaxul mhm. moo tax man du ma leen déglu doo leen déglu waaw man damaa bëgg nit koo xam ne dangay am respe mhm. respe daa baax mhm. waaye yor sa bongo ci weeru koor man way ci weeru koor nit ñi di dallu nit ñi woor sonn am ñoo xam bun bun bun bun maanaam firi nii wooree ay ngara ñàmm lan dan naan ŋàmm duñ man dara am na ñoo xam ne bu ñu wooree ay ngara ŋàpp lan dan naan mm-hmm. ŋàpp duñ man dara mm-hmm. am ñoo xam ne xam nga daa bari ngara ngara yàjj dan naan yàjj rek na ma xal mu tuur mm-hmm. léegi nag boo leen tiimee naan rëjëx rëjëx gajjax gajjax gajjax dan lay jéppi dañ lay jépp kay ah dañ lay def léegi nag loolu man soo sama xalaat ay te ñëwal sa ciy wax sama xalaat waxal sa xalaat ku nekk ak sa xalaat Lamine damaa bëgg bëngoo maan mm. ñu dajale bongo yépp daal di indi ko sama kër. Ah, yow Yamin. bu ndogee ba suuf sedd. Mhm. ñu daal di may bëngoon may fecc. kon kon boobaa ban gàmm lañ koy téye Yamin. gàmm nooy rek. ayca doo doo def benn gàmm na xool ba xam. ci weeru koor lan ci ñu nekk jamono nag yow. Ah, waaw mënut a ñàkk de moom. xam nga xaar loolu rafetul. rafetul waaw. nit du woor ba ngoon jot. Mhm. nga di ko fat. nga di ko tànqal loolu sax da ngay am ay bàkkaar di ko sonal. Mhm. xam nga. xam nga yooyu yëpp daa war a a bàyyi xel. waaye Lamine man oustaz laa damay firi ay gën. waaye leen rek ma jaaxal sama bopp. ah Lamine man dama bëgg jigéen weeru koor bu ma xale bu jigéen doom bee dama koy xool rek sama <laughs> yëg. te doon oustaz te doon oustaz man gis nga li may firi dëgg la. de yow nga yow de ab nga gën a jege yow. <laughs> jigéen nag dafay dafay neex de. ah torop ñi nga fàtte. <laughs> moom kay. yàlla moom bu wàcce wut bu wut woon femme. waaw dama naan ko yàlla mu ne ma ah ma ne ko rey ma ñu gas ma suul ah, lan laa fiy def ma. wax nga dëgg la eh, dafa neex nag. xam nga nag dañ ne fu góor ne. waaw jigéen nga ay. góor moo mën a defar jigéen. Mhm. jigéen a mën a defar góor. Mhm. yaa ngi may dégg. waaw ndax nag kenn mënut a bàyyi de kenn mënut a dem bàyyi. Eh, wallaay wallaay. da nga gis weeru koor yi ku ci takk mhm. man gis naa fi benn laaj léegi am na ci koo xam ne nee na mhm. weeru koor wi mhm. da cee am ñeenti soxna kan moom ci jëmmi boppam moom ci jëmmi boppam boobu dana yëg de ma ne ko man sama xalaat bu bopp kam ko ku nekk na ngay wax sa xalaat boo amee ñeenti soxna ci weeru koor waaw muy wu màgg te ñoom ñëpp boo leen bëgg a dajale ci weer wi du baax ci yow da ngay wàcc ñeent ñaar jox ma benn nga jël benn. bu ko defee bu koor gi jàllee. ñu delloo la fay. waaw ñu téye ko xam nga ñun ñun amaguñ <laughs> kii. waaw mais bi ma ko waxee dafa bañ. kooku du am koor. ne ma du ma ko nangu. soxna ma ne ko man kenn du ma baara sewreel ndax fasewu ma kenn man may baara sewreel wante. Mhm. weeru koor boo ci nekkee. Mhm. da ngaa war a nekk weeru lañ naan promotion. da mhm. nga cee war a jaamu yàlla. di jàng ay xuraan. waaye kenn du caméraman di waat moo. kenn du ñoom. keroog de benn waaye bu ñu naan Bécaye. Ah, xam nga ko bu baax. Bécaye li lim film keroog doy na waat de. ah maa jàpp 28 pro di seetaan rek gis booy sa waay di ful fesi ndaw <laughs> di tool ma ne jéeg. mooy imbécile de. <laughs> Bécaye doon la mel. non non Bécaye. Bécaye doon la mel. Ah? maanaam moom ci jëmmi boppam. waaw. mais nag li tax mu neex ma. Mhm. mooy dafa silwise mhm. am na yeneen maan yu fi ne. Mhm. ñoo xamante ni li ñuy tournage bu nu dem. waaw gis fu wut fu cappa cappa seen baaraam. moo tax duñ filmé lu baax. mu ah non déet munoo munoo boole ñaari. filmé en général ñoo ñëpp luñ filmé du génn <laughs> du génn du ko def. ay xaja cëpp léegi euh, kon xaal am naa dañuy dog fi ba beneen yoon ndax buñ toppee émission bi ndax feneen yi maa nga war a euh, euh, defaat beneen émission 28 pro mhm. ñu naan ko maa tay maa tay maa tay TV maa tay TV maa fay maa fay def émission boobu moom moom moom ak yaa ma neex ak yaa ma neex wala léegi dañuy ak màggal gu ma war a dem fii eh, nay neex gi nga xam ne maa a ah. nay neex fii nay neex nay loolu mhm. màggal de maa ngi koy doog a dégg <laughs> jërë ngeen jëf kon ñu yéen fii nga xam mooy 28 pro ah ngeen koy seetaan rek jërë ngeen jëf kon asalaamaaleykum wa rahmatulah jëf xaal.